vision global globale euh, ci moyen terme en tout cas afin bi euh, par secteur de l'information et de la communication euh, bi nga c'est un levier stratégique ci processus de la démocratie pour le renforcement des valeurs de paix, d'unité et de la solidarité nationale et d'autre part dériser le pôle économique à valeur ajoutée, promouvoir d'emplois et précaire. l'idée de point de presse bobulé ci ministre bi ci Babacar Diagne

def jéego boo xam ne day indi njëriñ jéego bu bees boo xam ne indi njëriñ askanu Sénégal parce que liggéey boo mënti def defal laaj boo toogee ab diir nga càmbar li nga def ndax baax na mbala baaxul euh, tel ni ñuy defal liggéey bi mooy askanu Sénégal donc askan boobu tey ñoo nañ teew si ndortelu lancement mooy ndorteelu assise de média mooy ñi bokk si euh, ñi jiite euh, kër diine yi syndicalistes yi ñu nekk si parti politique yi euh, ñëpp ñëpp daal lañu fi invité ku nekk nag di nga joxe li nga xalaat parce que bu ñu paree si ñu def tey euh, dañuy def juróom-benn commission yoo xam ne presque lépp loo xam ne ñor nañu en tant que taskatu xibaar foofu lañ ko doxeñ bu ko defee ñetti weer la ñu may commission yooyu juróom-benn commission yooyu ñu def liggéey bu mucc ayib bu ñu paree ñetti weer yooyu ñu jox comité scientifique bi nga xam ne moom moo war a tënk li ruusee

ndorteelu 2000 euh, fàttaliku naa parce que yàgg naa trop si métier bi euh, amoon na ñagas-ñagas yooyu mais après niñ ko réglé mooy que ne amoon na benn euh, jigéen ju man góor bu nekkoon jiite woon police ca jamono boobu Kumba Ndaw mu ngi léegi Centrafrique moo jiite woon bureau relation publique des armées ak jiite woon mooy dañu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom vraiment bañ ko defee rëkk-rëkk amatul woon ba presque bi fi Ablaye di joge donc ak bi Macky Sall di doog a toog si ñetti at yi ak. Euh, li ñuy wax affaire Ousmane Sonko pour dossier ci ci la mbir mi dellu si waat mais teewul dinañu toogaat ak ñoom bu ko defee ñu waxtaan ak ñoom euh, xamal leen ne ñun ñoo bokk liggéey bi warut ñagas parce que ñoom dañuy dañ nekk service commandé ñu dem.

li waaw xam nga ñu li tax ñu euh, nekk fi correct mooy yoonal suñ métier bi parce que yenn saa yi da ngay nit ñi dañuy def naka su noonu foog ne lépp loo xam ne euh, jëlee nga ko si si euh, wàllu collecte bi war nga koo mën a yóbbu ci penc bi donc misaal bi may joxe fan yi ñu génn am na benn liir boo xam ne fële Abass Ndao si ay anam yu ñaaw la la donc loolu.

ci wàllu li nga xam ne mooy bundu xatal fii nit ñi liggéey li ñu wax rek mooy fu lay jaay Dakar boo nekkee ci këru liggéeykaay ñu bëgg laa def mbaam la jaam mais euh, bu fekkee ne mën nga li ngay def nga ne leen fa ñukk dem seeti feneen parce que stage boo xam ne ay ñeenti at ay ñetti amul fenn stage bu bëree ba bëri six mois lay am bu ko defee buñ ko renouveler ñu war la jox contrat donc il faut aussi Euh, li ci war mooy que ne loolu syndicat euh, SYNPICS moo ci gën a mën a àddu mais def nañ ci jéego parce que am na euh, léegi convention bu bees convention collective secteur des médias li ci war kañ mooy nañu fexe ba appliqué ko patron de presse yi nañu fexe ba appliqué ko dañu naan way amuñu koppar mais je pense que nouvelle loi la publicité buñ ko adopté dina leen dimbali bu bëri parce que day tax ba média public comme RTS comme Soleil comme APS bu ko dootuñu xëccooti publicité boobu bu ko defee publicité tey boo xayma presque lu mu bon bon at bu nekk mën na rapporter plus de 30 milliards donc 30 milliards je pense que presse presse bi mënuñ koo mënuñ koo mën na fexe ba presse privée bi surtout ñu gën a gis seen bopp donc nañ fexe ba euh, loi boobu ñu gaa koo mote parce que texte yi pare na bu ko je pense que euh, patron de presse gis seen bopp bu ko defee nag ñoom itam patron de presse ñu xam ne loolu dañ ko war eggale ci ñi leen di liggéeyal parce que balaa ngay nekk patron de presse dafa ñu lay liggéeyal bu fekkee ne amul ñu lay liggéeyal mënoo naan man patron de presse sax. Euh, d'accord en tant que aussi euh, de la presse euh, yi nga xamante ne actuellement ñi ngi prison yi yan jéego def bi def mooy ki mujjee suñu rakk boobu nekk Sénégal ala ala ñun ñun ñoo fexe ba jàllale wuñ ko parce que bañ koo defee garda bi ci lañ jóg. Euh, wax fi ñu war a wax ba ñu déggal ñu mbir mi sax dañ ko mujjee teg si suuf loolu euh, Pape Ndiaye bi nga xam ne euh, nekkoon na si kaso bi sëñ Saliou ñu ñoo ñëpp mën nañu wax ne ñun ñoo si xartuñ tànk tubéy bi ñu génne la donc li ñu war ñu ngi koy def ah. mais li ñu gënaloon mooy que ne nguur gi gën a delloo siwaat xelam wax nañ ko ministre Ismaïla Madior Fall parce que dem nañ toog moom ne ko bu ngeen amee xarma yàlla ak taskatu yoon ba la technicien des médias Corée da ngi fi dem neen ngeen jébal foofu plainte dinañ ko càmbar tribunal bi mu ngi fi dina def liggéeyam bu dee journaliste mbala technicien dafa jar daan dinañ ko daan parce que daan nañ fi ay journaliste yu bëri donc euh, jarul ñu foog ne lépp lu lu xaw rek ñu ne kaso kaso ci affaire waaw dëkk bi vraiment fi ñu yóbbu kaso dafa dafa baaxul kaso baaxul donc am na kii question yu bëri yoo xam mën nañ koo régler kuréel yaa ngi fi mais nañ nañ fa jaar mais foog ne boo tëjee yéen ñi mën mën nga koo xokkatal je pense que loolu dañ ko war a moytu wax nañ ko ministre bi yor wàllu wàllu yoon di Ismaïla Madior Fall Ok. On va parler de la protection des professionnels des médias. Pourquoi ces deux commissions nous intéressent Parce que tout simplement, si vous vous rappelez, il y a quelques mois, lors du Gala national de la presse, nous avons montré les premiers résultats de l'étude que nous avons eu à mener. Sur 216 reporters qui ont été, euh, disons, qui ont eu à répondre donc à, notre, à nos questions, 44% ne bénéficiaient pas de contrat de travail. Et sur ces 44% également, la plupart d'entre eux n'ont pas de couverture maladie ou bien également à la fin du mois, ils ne reçoivent pas de versement au niveau donc de l'IPRES, ce qui ne garantit pas une bonne retraite donc pour ces reporters que vous voyez là au quotidien sur le terrain. C'est pourquoi nous, ces assises vont nous permettre d'aller dans ces commissions-là, de poser le débat, Euh, ci njëlbeen dañuy rafet rafetlu euh, tàmbali gi ñu tàmbali assise nationale euh, des médias ndax doonoon na loo xamante ni lu ñu yàkkamti law ngir waxtaanee jafe yi nga xamante ni moom la ñuy gën di nemmeeku jamono ji fii ci milieu de la presse ci Sénégal moo tax dañuy am mbégte bu baax a baax a baax ci tàmbali bi li li li ñuy jooytu nag ñun ñi nga xamante ne ñooy ndaw yi bëgg métier bi ñi nga xamante ni ñun bëgguñu la neen wutuñu la neen ñu bëgg toog ci métier wu journalisme toog ci métier wu technicien des médias bëgg ci euh, surtout li ñu bëgg rek mooy nu gën ñëw gës gestu euh, ndax ndaw ñi ñoom ñoo nekk su le terrain kon mérite nañu condition yi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee ñu gën koo euh, ñoŋal ngir ñu mën a def suñu liggéey ni mu waree moo xam wàllum jumtuwaay la waaye itam moo xam wàllum salaire moo xam wàllum protection sociale loolu noonu yëpp nekk na loo xamante ni tey jii pour nga gis ndaw journaliste wala technicien boo xamante ne am na contrat sax mu jafe la ndax dañuy bàyyi rek nit ñi mu nekk ci maison de la presse loolu day gis ñoo xamante ne amuñu sax euh, bu bu baax ngir mën a liggéey seen liggéey am yoo xamante ne amuñu sax salaire loolu nag dañu bëgg ñun ndaw ñi dañu bëgg loolu dak loolu moo tax tey jii ñu waroon rek euh, porter plaidoyer ci kanamu autorité yi di am yaakaar ni bu ñu paree euh, travaux yi nga xamante ne ñetti weer lay jure dinañu am ay solution yoo xamante ne ko appliquer ngir jeune reporter yi liggéey seen liggéey né? ñu war am ci yaakaar bu baax a baax ndax gis nga tey ji ministre bi nga xamante ni euh, mooy Moussa Bocar Thiam euh, ba mu ba mu jëlee kàddu nangu na ni que euh, il faut que ñu réformer le milieu loolu ñëpp ci bokk nangu te comme que tënku nañ ci loolu je pense que li si des rek mooy yoon wi ñu war a aw donc am nañ ci yaakaar bu baax a baax bu ñu gisee borom xam-xam yi nga xamante ne ñoo saytu mbir mi. mais ben, effectivement euh, jeune reporter yi du ñu yem rek ci euh, porter plaidoyer du ñu yem rek ci décrier situation yi waaye dañuy def ñun itam suñuy proposition te dinañ dugg ci commission yi ñoo ngi invité jeune reporter yëpp ñu dugg ci commission yi bokk ci liggéey bi bokk ci ñi nga xamante ne dañuy proposer ay solution yi xamante ne buñ ci àgg buñ ci àggee ñun ñëpp dañ ko bokkoo ko mu nekk suñu waaw je pense que plaidoyer bi nga xamante mom lañu wax sànq ëmb na góor ëmb na jigéen jigéen ñi surtout ndax boo gisee c'est vrai que euh, nit ñuy woowee fois le sexe faible nekk loo xamante ni lu ma neex la trop mais dañuy woowee le sexe faible ndax peut-être am na ay euh, jafe-jafe yoo xamante niñ koy rencontrer bokk na góor ñi niñ koy rencontrer waaye plaidoyer yooyu noonu ñëpp euh, mooy wàllu salaire mooy wàllu condition de travail ñëpp ci bokk donc muy góor di jigéen waaye rawatina jigéen ñi ndax gis nañ ni euh, pour ñoom ñu accéder par exemple lu ci mel ni poste de responsabilité yi lu jafe la parce que peut-être milieu bi ñuy évoluer di milieu social boobu loolu permettre ko loolu noonu yëpp dina doon loo xamante ni euh, lu ñuy waxtaanee la ndax dimension genre aussi dañ ko bokk ci biir commission waaw jigéen ñi nañu am fulla nag foofu jigéen ñi sam seen bopp ñoo war a am fulla xam ne nit ki mën nga liggéey am sa liggéey ni mu waree te doo du jar ngay jaar ci yéen euh, ceci, c'est ce qui me fait à cette, euh, c'est ce qui me fait à cette, euh, c'est ce qui me fait à ce point de presse. c'est ce qui met fin à ce point de presse. L'information se poursuit sur www.madepos.com et sur Madeweb 38 des programmes.